xam-xam-xam la ñu soxla bu maandoo ne yow te bu maandoo la ñu mën a jëf leen teel moom la ñu sawar a jëf leen teel ba iskan ja tabee ci loxoom mu tontu qaalu li yarkan li abwaabi salaatini taxam jawaaxisa tuxyi kulla ma xiini faqultu xasbiya rabbi waqtafaytu bihi wa lastu atlubu gayra al ilmi wa diini فلست أرجو ولا أخشى سوى ملكي لأنه جل يلزمني ويغنيني إن كنت ذا حزن أو كنت ذا وقت دعوت ذا العين ثم الراعي والسنين وهو المعين الذي لا شيء يحجزه وهو المكبر ما شاء أي تكليم إن شاء تأجيل أمر كان ذا عجل أو شاء تأجيله ويقطع إلى الحين قوم جي بقى سيدك جاه نانيما ناجن jëm ci بوري buuri كنت انا danaa اي ci ay may lu ma doy sëkk jamono ju nekk ma ne leen sama borom sakkuuma lu dul xam-xam ak diine ndax man bu ma jaaxlee wala ma am aajo borom aras laay woo mu wuyu ma ndax borom aras mooy aji dimbali bi nga xam ne dara lottanu ko lu nekk la man te moom mooy amal lépp lu am ak amalin ba mu ko neexee yee na jëmm ja nga xam ne féete na ko bu mag te bokkoon ci sëriñ si te doon ko jëme ci yet googu xëcc na ko fàttali li suñu borom tëj koo gaa ñi jàng jëm ci tooñkat yooyu la laa tarkanu ilal wala tarkanu ilal lazina walamu ko damassakumu naaru maa lakum min dunillahi min awliya laa tunsaruun alquran nee na bu leen jàng jëm ci gaa ñi nga xam ne tooñ nañu bu ngeen ko defee safara dana leen laal te du am kenn ku leen di dimbali seen digal seen borom bu ëllëgee bu leen di lakk wala mu di leen dugal dañ ko bàttal na wa man yusharikum huna fi fi zullihim képp ku bokkaale ñoom ci fii da nga bokk ñoom seen torox mu daan xamal jam ñi leen farlu kon gannaaw noonu la dund gàttee te yomal xiyaam bar sax rek maanaam bàmmeel noonu lañ fa yàgge ni farlu waré kon ak ni doomu aadama war farlu la ci ñu ne la mu daan yedd ci lan ñu wal ak ci lan ñu arab daana wax ne tàyyeel jarul ñàkk bànneex jarul gàccee àdduna jarul alaxira daana wax ne kuy fay mucc kuy fay yu du tëj du xëccoo du noppalu ay mag yu mel noonu daana ko bari lool ci kaw bu yeete daana yee mbindeef yi ci yeete yi mu nekk waxtaan daj ak waxtaan daj naka noonu la ko jamono yi ak gis yi daan dimbalee ci loo yoon woowu mu daan jaarale mbindeef yi ndax jaarale woon mbindeef yëpp ci wenn yoon dong ndax nee ñu yoon yi jëm ci yàlla ñu toll yi li ñu baree te am na benn wala ñu boo xam ne nee na manaa jilay awliya uy ñaari téeméeri junni am ñeent junni ak juróom-ñett lañu yoo xam ne benn bu ci nekk bu mel ni Sëñ Tuubaa daf koy boole ci loxoom xam-xam ak yëpp mais juróom am na juróom benn téeméeri xam-xam yoo xam ne xeeti xam-xam yoo xam ne ulama yi xamuñu sax digal waxu laaj xam xam-xam ba mu doon loolu su mel ni moom a koy dajale loolu tax na yeneen rëdd yi ko féete ndeyjoor yi ko féete càmmoñ yëpp yooni seetaan la la ñu war a wattandiku la lépp nañ ko kon ñoo wax ne noonu la yoon jëm ci yàlla baree ñii ajjana leen daan jëme ndax kat koo xam ne suñu borom bind ko mu war a dem safara ñi am sañ-sañu wallaahu mahfoos ci seen turu taalibe bi bind ko te ñu war safara ñu far ko naroon a jëm safara ñu yóbbu ko àjjana aw yoonam bokkul ak ci naroon a texee naka jekk xam ne suñu borom bindoo na ko ca way texe ñi nga xam ne dañ ko war a xamal yàlla rek àggal ko ci yàlla dañ ko war a defal bokkuñu yoon ci diggante nit ñi ak jinne yi kon ku nekk xam na ne lim daan wane nit ñi yoon la daan wane jinne yi yoon moo wax ko def ne yataallaqa alladina aslamu min jinni asri doona man lam yuslimu jinne yi nga xam ne jullit lañu ci yoonu yonent bi sallallahu alayhi nekk ci man la ñu jébbalu ci man lañu ñu aju loolu waxoon na ko mu dal ni xamal ne kon li mu daan wane nit ñi yoon la daan wane jinne di adduna ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na adduna ba ko su borom 16 heures laafu yoo laafu yoo daf koo wax

aajo woowu ngay xam baatin boo leen gisee rek kenn ko gis meloo zahiram moo lay tegtal baatinam moo lay tegtal ni kii doy na nekk ngir meloo ñu meloo ñu ñee leen